kon ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi nuyu mbokk yi fi tedd yi fi tedd yi di bokk taalibe yi di mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ci sëriñ bi te bu ñu tegee nuyu ci loxoom Cheikh Saliou Mbacké ñu Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu nga xam ne mooy kilifa jotaay bi waaye itam jiite lii nga xam ne waa mubaadara la mubaadara tayiba la boo xam ne waa daayira Tuubaa ca kanam ñoo am xalaat ci njiital suñu kilifa bu baax bii di sëriñ Abdou Mbacké Cheikh Mamadou Fadel ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal kuréel bi yëpp fekk bu ñu tuddee sëriñ Abdou Mbacké sëriñ Abdou mi nga xam ne mooy jëwriñu ci liggéey bi mu mën a yóbbaale mbokk yi mu set yëpp ndax Touba ca kanam moom daayira la boo xam ne mboolem ñu yaakaar suñu Touba ñëpp ci biir amul frontière ndax liggéey seen Touba tey yàlla defee leen ci tawfeex da seen Touba doo wax ci nax loolu sax jëmm ko tax du waaye mu ngi sant jëmm sax wa min saadati lfata xaytu xasat an la yurdahu fa abisir sax waaye yàlla defal na te sëriñ Sane la wax na sëriñ Tuubaa nee fa xool taali bi jëm rek fa fa la xool jëm ñu bëgg lu baax ñëpp maa seen seet fa noonu ngeen xam ne ci lu baax rek nit tax te ci lañ nekk te lépp nit tëri mu fi wasalaatu wa ata zakat wala bi yaxsa illa Allah tuddee julli rek asaka la ci te mel ne nit ñi dañ koo ba tax ñu di ko fàtte ndax ni alal di tax ci xolu borom waaye nag dañ xam ne asaka bi bokku ci suñu alal dañ ko moom xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka nit ñi buñ xamoon li muy jëriñ xam la ci suñu borom jubloon kon ñëpp day dem marché ci gën a góorgóorlu ci foofu ndax ci gën a dugg mooy dana laabal alal yi fi koy def ndax alal gi des te génne bu asaka moom ko bu xasee man misaal ba asaka wàcce ci nga xam ne suñu na ca asaka ak ci ñu ko lu bari ci ñu néew doole asaka ñu koo génne def boobaay moom la daan dara wàcc te Serigne Touba xam nga lu bari ci taarix ne ñëw na yëkkati ay di ko jox asaka la dem na génneel asaka yi boo ko nekkee kon nag mbokk taarix bi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak asaka àq la ñoo ne àq suñu borom la. yow mi liggéey alal ji ba lew ba waxtu fekkaat ko fa loolu dañ ko wuutu génn ko laaw moo waral xam nga ne ci lislaam baytul yi bari na ko ci daan jàng waaye daanaka nit ñi dundu ko sax ndax amatul ndax yooyu ay attale yoo xam ne nit ñi day ko fàtte ko wal wal aamiliina alayha bu ko déggee booba ci yooyu jamono dañ daa sàkk ak kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii taxaw daal nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom liñ baaxoo def ci seen biir yëpp luñ ci dugg yaa defe leen ci ni ba defe leen ca doo fex ndax dañuy jiital xalaat bu xóot teg ko ci yoon doo ko yëkkati ndax lii kat bañ ca laajee seen mu digal yàgg na kàddu yi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati ci soññee doon na sëkk ay kàddu buñ ci toogoon bu guddi di wax it mënuñoo romb kàddu yi rek kon nag Cheikh Mamadou Mountakha nee na sëriñ yi ñu mu leen di sant di leen gërëm yàgg waa daayira Touba ci kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp te dama koy faral di wax muy yow di sëriñ ak ñi topp seen ginnaaw dara itteel yoon lu may Sëriñ Tuubaa ñëpp ci dara lu may loolu laa war a tamit ñu topp seen gannaaw ñëpp ñu joxe seen xeet di la kon loolu yàlla yàlla yàggal ba li ngeen sumb ko jàppale ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ci biir dëkk Sëriñ Tuubaa bi rek moo ñu ko itteel tool fu waay defee moom ma koy yàlla yàlla gën a bàtteel kuréel ba lii ngeen sumb mu dem ba nekk ay milliards yu bëree yoo xam ne dana mën a amal njëriñ ñi nga xam ne ñëw nañ boole te bari na ci jamono te suñu borom waxtu wu di fàtte ñu war a dimbale ñi nga xam ne dañoo néew li yunfiq min zu saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu Allaah waaye nag kuy def lu baax rek day fekk nga génn askan ba wóor la ca des sànni na leew la yaa xam ne da nga wóor yi nga def bu baax bu dul loolu la nga cay yéene jëf ji day